waaw Fama dama jël si lii de. lii naa si dama ko jël si de. daal bu gën a tàkk demal demal. te couple heureux couple dala nekk. <laughs> non dañuy tàllal micro dañuy tàllal micro. ñun tey déedéet déedéet ñun dañuy tàllal micro. honneur ñu ngi leen di ñu ngi leen di fay. sa teewaay si li nga xamante ne moom mooy euh, bis bi. alors dañu ñëwoon euh, jàppale si suñu sœur man ma doon gérer partie présentation bi ak Pape Cheikh donc euh, xam nga ni euh, la reine du Jolof Boor moom mënut te woote te duñ ci teew si voilà. voilà tey ren ñëpp def témoignage yu rafet ci li nga xamante ne moom mooy la reine du Jolofane kenn du wax nag sa diggante ak Viviane ndax yàgg ngeen ñun gis nañ ko fekkee nañ ko tey ban témoignage ngay def si Viviane surtout si 22 ans de carrière. borom xolu or la c'est tout ce que je témoigne loolu rek laa mën a wax si moom. c'est tout ce que je peux dire sur elle que borom olu xolu jamaa la borom xolu or la baaxam a tax nit ñi yëg ko fonk ko et euh, on espère que li mu bëgg ci ndam yàlla dina ko may. loo yëg si yëg-yëg bi. <laughs> sant rek. Ah. effet sant rek toll nii effet sant. merci beaucoup.